la ñu tàmmoon di gis auparavant mooy bu ñuy organiser élection daanaka processus bi yëpp ay coow lay nekk. Mhm. bu ñuy commencer ñu gis ay yenn ci structure yoo xam ne dañuy jox seen bopp taxawaay bu ñu amul bay mën di neenal bokkub yenn candidat je veux mhm. je veux dire euh, foofu position bu DG amoon. par rapport ak mhm. situation Ousmane Sonko. ñu gis aussi ci dépôt liste yi tantôt nga gis. Euh, yenn taxawaay yoo xamante ne daanaka da doon manqué transparence tey ñu dem ci benn élection anticipé d'ailleurs. Mhm. boo xamante ne defuñ ko dans les temps. Mhm. mais ñu gis réussite bi mu am. mu romb mhm. yeneen élection yi. tey bu ñu doon tiireel chapeau kan lañ koy tiireel. mais li ñu naan charité bien ordonnée commence par soi-même. Hmm. dans un temps premier. oui tous ces honneurs reviennent au ministre de l'Intérieur. et tous ces honneurs aussi reviennent au gouvernement. qu'il appartient. donc tey jii ndam li ndamal gouvernement bi la ndamal la président de la république Diomaye a à un moment donné j'ai vu des patriotes yu ñu génn naan noo Diomaye dafa war a jàppale Ousmane Sonko. Hmm. waru ko seetaan fàtte ni le président de la république warul interférer ci élection yi. warul far fenn. Diomaye a été du neutralité extrême. neutralité boo xamante ni mosuñu ko gis ci Macky Sall mosuñu ko gis ci Ablaye Wade mosuñu ko gis ci Abdou Diouf. maam ni président waroon a mel la mel. njaboote ñëpp. non mais laisse tomber mon frère. Mhm. Diomaye a montré une grandeur qui dépasse mon ma vision. à travers sa neutralité. bu gisee ku jalgati. ci njëkkax teraanga ñu xool nuñ koy lijjantee ne leen vous n'avez pas le droit lépp nañ ko def ci fair play nañ ko def ci jàmm parce que Sénégal réewu jàmm la. Mhm. donc mérite bi ça revient au président de la République. et ça revient également. à son ministre de l'Intérieur. Donc, chapeau à le ministre de l'Intérieur du Sénégal. D'accord. Félicitations. Mmh. Alors, ñu ñu demaat euh, ba tey wala ñu des ba léegi ci élection législative yi mhm. voté nañu ba pare gis nañ enseignement bi nga ci tiré jàpp nga ne mhm. maturité euh, peuple sénégalaise bi moom moom manifesté wu ci élection yi donc mhm. ñu wane ne du ñu joxe bopp rocc làmmañ mais nag dafa am ay urgence yoo xam te ne dafa taxaw mhm. bokk na ci ay réformes yu ñuy xaar mhm. côté justice bokk na ci aussi ay loi yu ñu war a mën a teg ay mhm. projet de loi de même que abrogation wu loi amnistie bi nga xamante ne euh, mu ngi def coow donc tey lan nga jàpp ne euh, moom moo war a nekk urgence yi nga xamante moom la ñu war a penché wu pour mën a indi satisfaction par rapport merci à pour cette question oui. Rassoul mm màgget la Sénégal fépp ay metti on dans un pays où tout est urgence dans ce pays fépp foo laal urgence la parce que dañoo fekk réew mi ci anam boo xamante ne ni c'était pas évident. Mmh. même boo gisee le président Diomaye et son gouvernement ba tey ñu mën a résister traverser yenn moment yoo xamante ne nii c'était pas évident. Hmm. gis nga dans ce pays-là tout est urgence. au matin lorsque je déjà maa ngi dégg hier suite. aux félicitations que le président de la République a accordées à monsieur Ousmane Sonko. Mmh. ce qui est normal d'ailleurs parce que un président de la République képp ko gagné dañ la war a féliciter mm. bon c'était juste benn passage parce que dama dégg sama sœur mm. Zara yan Thiam di ñaawlu loolu loolu da ko war a rafetlu mais nekkul lu ñuy ñaawlu mm. parce que président organiser na fi ay élections yoo xamante ni ci jàmm la la la la xewee résultat yi kenn merul kenn xuloowul kenn xeexul ñëpp d'accord. Hmm. donc il est très normal mu féliciter ki gagné. d'autant plus que moom la doon utal. voilà moom la doon wutal mais moom jàppale ko sax. Hmm. dañu ko demal nga ñafe ci. ba pare nga indil ma. Hmm. Ousmane Sonko il a réussi le pari non seulement bu doon keneen la dina ko féliciter et certainement le président de la République ni mu féliciter Ousmane Sonko noonu la féliciter ñi nga xamante ni aussi dem nañu élection. par leur courage. ok donc mu nekkoon benn parenthèse boo xamante ni nii vraiment c'était important pour ñu mm-hmm. waxtaan ci mm-hmm. et maintenant pour revenir à nos moutons par rapport ouais. aux urgences de ce pays donc ce pays tout est urgent mmh. voilà on a parlé loi de finance nga xamante ne dañ ko war a voter mm-hmm. exactement on en a besoin parce que budget Sénégal mooy yor Sénégal mooy doxal Sénégal ça c'est une urgence ouais. le côté sanitaire la santé c'est une urgence les les les prix de première nécessité Mhm. c'est une urgence les logements la location le coût cher de la location à Dakar ouais. c'est c'est c'est vraiment difficile yaa ngi comprendre mhm. doom day actuellement am na boroom kër yoo xamante ni bu ñu toggee añ du ñu togg reer sak ak sutura rek la réew mi di wéyee mhm. ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi daan seen doole nekk ay fonctionnaire nekk ay liggéeykat seeni salaire dundalu leen rawatina ndaw ñi nga xamante ne dañoo am yaakaar ci régime bi am yaakaar ci Diomaye am yaakaar ci ci Ousmane Sonko. donc ndaw ñooñu est-ce que du urgence. oui yaa lii tax xale yi depuis des années ñuy jël yoon bi yoonu yoonu ndox mi. Mm-hmm. y a combien de morts. ça c'est des urgences loolu loolu c'est pas Sonko ki a créé ça. Mm-hmm. c'est pas Diomaye qui a créé ça. ñoom fi lañ ko fekk mu nekk une hémorragie interne. oui boo xam ne dañ ko war a arrêter coûte que parlant de justice depuis ñaata at l'ancien régime il utilisait la justice tu vois yow boo àndu teex man ma ma taqal la ay pot yaa ngi comprendre mm-hmm. y beaucoup de bavures yoo xamante ni jot nañ fi am donc on a besoin de l'indépendance de la justice, de la justice oui. et la séparation des pouvoirs confirmée quoi Exactement. donc dans ce pays tout est urgence mmh. frère mm-hmm. lépp urgence la donc euh, mu mel ni daal ngay citer Euh, le coût de la vie bi nga xamante ne dafa cher ba jéggi dayo location bi aussi mhm. euh, dafa chair ba jéggi dayo loolu dañuy permettre ñu dugg ci ci ci beneen sujet moom mooy lu soxal mbiru suuf si mhm. période bi nga xamante ne Sénégal pour nga am fi dëkkuwaay lu jafe la nit dafay liggéey daanaka pendant des années pour mu mën a am benn terrain bu mu moomal boppam lu jafe la mais pendant ce temps ñu jàpp ne régime bi fi nekkoon mu ngi doon sax-saaxee suñu ay suuf dem sax ba ci littoral bi di ko jox ay nit lu toll ci 10 hectares démb ñu jot ay information yi nga xam te dafay wane ne nouvelle autorité yi ñu ngi commencé di corriger loolu ba nangu nañ ci lu toll ci euh, dix hectares yooyu ñu joxe woon ci ci ci littoral bi. Euh, loolu aussi ban jàngat nga ci def. bon dafa am benn euh, ex député. est-ce qu'il est toujours député Bara Bara Dolly. Bara Dolly non non. ex député mm. alors. Mm. Bara Dolly dama ko gis à télé muy def conférence de presse yor lu mat ay douze terrain ay kayit mais Bara Dolly fan la ko jëlee salaire député moom moo ko may loolu mais dans la vie da ngay gis koo xamante ni ici au Sénégal benn nit mu leer la ni lii bu dee liggéey mayu ko ko mbuxum moo ko ko may te gis nga réew mii dama fay gis ay nit ñoo xamante ni ni hmm. da ngay gis ku nekk ci nguur gi di maye suñuy terrain gratuitement di ko neexalee seeni gel gratuitement di ko neexalee seeni xarit gratuitement di complot au du peuple sénégalais jël alalu réew mi di ko saax-saaxee ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët fii ci réew mi mm-hmm. aujourd'hui ce qui est encore plus grave quand le président de la république donte yaay président de la république amoo droit jël ay hectares di ko attribuer qui que ce soit surtout rawatina hectares yi nga xamante ni ci géej gi la nekk mm-hmm. mais géej gi kenn moomu ko c'est un bien commun oui. tout le monde a le droit et tout le monde a même je dirais, bref, le droit hmm. de pouvoir jouir de ces opportunités que la nature nous a données. la nature dafa am loo xamante ni ñëpp a ko bokk benn nit rek moomu ko géej gi kenn mënu ko jaay kenn waru ko jaay képp ku ko def da nga def délit géej gi nga xamante ni ñëpp a ko bokk yow da nga am envie génn. comme on di un esprit sain dans un corps sain. Hmm. on a besoin yow boo amee say problème am say soucis nga dem doxantu ji ñëw jàkkaarloo géej gi parce que géej gi da lay faj géej gi day génn ay problèmes yu bëri yu nekk sa bopp. Hmm. la beauté de la nature. Hmm. que Dieu nous a ñu war ci profito nga jël ko nga jox ko étranger wala nga jox ko koo xamante ni soi-disant borom doole la. mais loolu moo expliquer accès difficile bu sénégalais am pour mën a dem ci plage yi. c'est injuste c'est une et je veux vraiment qu'on puisse élargir. Mmh. exactement ces acquis am na ñu bëri ñi nga xamante ni ñu ngi occuper littoral bi lu ko dalee Ndakaaru Njaay mhm. dem ba Ndar dem ba Casamance. occuper littoral bi alors que c'est pas normal géej gi ñëpp a ko bokk. Mhm. te kenn warul privé sénégalais bi wala doomu baadoola bi wala baadoole bi. parce que yow da nga yor koom-koom ba li nga xamante ni ñëpp a ko bokk amoo ci droit nga def ko képp ku ko def c'est un délit mm-hmm. te affaire boobu dama bëgg ñu récupérer littoral bi yëpp boo demee Maroc mais buuru Maroc da ngay xool littoral bi ñaata kilomètres la ci nangu mm-hmm. en terme de milliards kenn mënu ko kenn mënu ko naatable parce que c'était c'est de l'argent rapide quoi oui. c'est de l'argent facile ça c'est du vol mm. et ça c'est une injustice donc buñ ko nangoo vraiment je salue nga jàpp ne est-ce que du nekkul lu trop tard parce que bu ñu xoolee. am na ñu jot tabax non non c'est pas trop tard mieux vaut tard que jamais te ñiy jot tabax ñëpp te seen tabax teguñu ko ci yoon nañ ko daaneel parce que moomuñu ko ça leur appartient pas. Ah boo jëlee alalu jàmbur non mais investissement ci lu dagan investissement ci loo xamante ni nii dëgg la. Hmm. mais nga jël alalu jàmbur nga investir ci. mais dañ koy nangu ils vont être les par les perdants. kenn waru leen a